suratul anfaal màkka la wala astafurlah madaniya la di juróom-ñaar fukki aaya ak juróom-ñaar wala ak juróom-benn wala ak juróom dégg nga ko bu baax di junni xaraf tabaarakallaahu ak dégg mën a xaraf baat sax téeméeri xaraf kon déet ëpp na ko de man de xam loo bind fii loo bind sama bind mi de naaw na fii xamatuma lu mu bind de li ma ci li ma ko bindoon daal xamatuma ko sa siira baa ngi ci kaw ma waaye daal ma juróom-benn man suux moo ci ne ay yoo xam ne leen man suuxal ay xaraf yi jàpp baat yooyu ñu bëggoona wax nag te fàtte lim bi bu la yittelee boo yéegi ci kaw boo xoolee téere da nga gis euh, mi ngi nekk juróomi junni xaraf dégg nga ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti téeméer kon ak euh, juróom-benn fukk ak ak ak ñeent. li muy jàngale bis ni tey la ca xewoon ca weeru koor loolu lay jàngale ci gàttal tey la fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim nekk màkka yëpp yàlla sant ko xeex saa buñ waxee rek yàlla na ko muñal ba ñu dem madinatul munawwara ba gàddaay ba ci ñaareelu at ma yàlla farataal ci ñoom xeex lala Cheikh Seydil Haaji Maalik doon wax naan fi rasi zayin wa xaalal baadu daaka jaraa fi la ami taabir ula yàlla xul fihimi wika makaasihi yahdi mubridan kabiran ala xilaafin ataana min dabil xadami ma ngoog ba ñu gàddaay ba am ñaari at ca weeru koor ca fukki fan ya ak juróom-ñaar tolloog weeru mars ci ci atam miladiya juróom benn téeméeri at ak ñaar fukk ak ñeent 624 badar mi ngi nekkoon boori madinatul munawwara am na ñu ne sax dañu fa daan daje léeg-léeg dafa def seen luuma yooyu xare bi it mi ngi xewoon bisu aljuma comme noonu ma la waxee léegi bisu aljuma la ko waraloon nag mooy Amr ibnul Xadrami boobu dañu ko rayoon ci njàngal ma boo xam ne que jiiti woon njàngal ma mooy Abdullah ibnu Jaas mu naqari woon yéeféeri trop fu ne kolaas nañ fa Moustapha waaye mënuñ ko am yenent bi nag ba mu yégee ne Abu Sufyaan ibnu Harb bu koo ne côté Saam te war na jaar seen boor boobu te njëggam Quraysh mi yëpp ma nga ca mu nekk alal ju bëri lool alal ju bëri lool la yenent bi nag ne neñ fexee dogali alal ja Abu Sufyaan ba mu yégee ne yenent bi am na ñu mu yabal pour ñu gëstu ci ay mbiram dafa jël kooku ñuy wax dem Damdam ibnu Amr al-Ghifari yi fay ko xaalis nekk ko soo demee nga ne waa Màkk su ñuy yeex rasulullahi di ma tër di nangu alal ci luñ daw daw rek xeeb naa ko lu ñu gaaw gaaw it xeeb naa ko waaye ñu gaaw gaaw rek xeeb naa ko moom it ba muy àgg ma nga boppam xotti fee dagg fee pour gën a garaawal mbir mi rek pour gën a garaawal mbir mi ba mu àggee taxaw ci montagne moomu ñoo abu xuways yuuxu yuuxu goo xam ne tabaarakallaahu fu nit nekkoon génn na ci biir màkk gars yi na jàmm mu ne bu ngeen yeexee rasulullahi tër abu ja abu sufyaan seen alal jaag seen dund jaag lépp a ngi na avant boobu Aatika bàjjenu yonent bi am na gént gum géntoon ci Màkka gént googu mu ñëwee di ko Abbas Abbas ko mu wax ko Abu Jahl Abu Jahl ne ko gis nga bu fekkee li ngeen wax amul billaahi daañu leen wax loo xam ne ci dëkk bii doo leen ko fàtte ba keroog ngeen dee aha ci noonu yonent bi daal di yabal ñaari sahaaba ne leen dem ngeen xool ma Abu Sufyaan ba xam fu mu toll kooku ñuy wax Basbas ibnu Amr ak Uday ibnu Abi Zagba la yabal ba xam Abu Sufyaan fan la toll ak njëg bi ñoom itam bañ ñëwee ba nga xam ne kenn ba nga xam ne yaakaar nañu fii Abu Sufyaan moom fu mu mën di jaar fii mooy rond-point bi mooy carrefour bi al ci moom ni mu ko mun waxee yàgg yàgg dana fi jaar moom benn mu jaar fi ba jàll wala mu war fi jaar fan yii ñaari gars yi ba ñëwee fekk jigéen ñi di root ci teen ba mm. dañu laaj waaw fii ay gars yi jaaruñ fee ñu ne déedéet mm. gars yi dem toogi ne la saxaaba yi dem toogi ci taata garab ga mm. mel ni ko amatul soxla ci jigéen ñi toog na moom yàgg kenn jigéen ji wax morom bi waaye yow sama bor bi ma yorloon kañ nga ma koy fay bor bi yàgg na nag wax dëgg yàlla fay ko jot na nag morom mi ton ne ko nag waa man kay xam naa ne Abu Sufyaan xam naa ne du yàgg balaa mu yàgg fan yi dana fi jaar te bu fi jaaree bu ma ko bëggalee su ma fayee ma fay la aha yi départ na yént bi Abu Sufyaan jaaragu fi léegi nag lenay am gaaw rek yenent bi woo saaba yi diisoog ñoom na leen dama leen di laaj lu ci seen gis-gis nag lu ci seen gis-gis ak lu ci seen xalaat waawusu ak xasraj na ñun daal yeneen bi lii la Seydina bakar wa ba ngay ñëw ci ñun am na lu ñu kóllërante woon yow ca màkka te it fee ñëw pour matale si kóllëre ga ndax fàttalikul ba ñuy jaayante ci akabaat ya zannu la Seydi Haaj Maalik waxoon bi an anna hudaana sawfa yaxsuluhum aw saadiqan qaala inni hatmukum hatmi loolu góor gi jàngale woon kon ñun moom duñ la mën seetaan li lay xamal daal géej gi soo ñu ko traversé la woon daañu ko xuus duñ la mës a wax nag la yént yàlla banu Israaïla waxoon yent yàlla Muusa izhab anta wa rabbuka fa qaatilaa innaa haahunaa qaa'iduun amuñ fit woowu duñ la ko mës wax yenent bi nag kon ay wa dox leen ci barke yàlla maanaa ala barakatillah fa siiru ala barakatillah yenent bi départ nag Abu Sufyaan fexe na ba na agsi na fekk Abu Jahlin moom tamit li ko wër ci dëkk dëkkaan te kóllëre nag ñoom depart nañu ñoom tamit ba ñuy départ ñoom mat nañu junni yemuñ ca waaye lañ yor ci xeeti mbubbi koŋ toll na ci juróom-benn téeméeri mbubbi koŋ fas lañ ci yor mat na téeméer gileem moom lañ ci yor kenn xamul nu mu yem mën na juróom-ñaari téeméeri gileem génne jongoma yi xale yi ndaw yéeg yu jigéen yi xama yu jigéen waxambaane yi ñëpp ñu leen di tëggal di leen feccal hmm. nga xam ne keroog la yor ci alal ci wàllu financement rek amoon na fukki ki borom alal yoo xam ne ak ñaar hmm. ñoo xam ne kenn ku ne def ne maay bis bu set maa ayee añ beeg bi ci junni nit ñi hmm. abu jëlin ci ñoo bokk ñoo ñoo yoroon dépasse ci la bokk utbat ibnu rabia ci la bokk shaybat ibnu rabia ci la bokk hakim ibnu hisaam ci la bokk abbas ibnu abdul mutalib di bàyyi tax ci yéen fi ci la bokk abu buxtari ci la bokk Eh, ma ci la bokk abu ubay ibnu xalaf ci la bokk umayat ibnu xalaf ci la bokk nadir ibnu xaaris ci la bokk nubayhi ci la bokk munabih ci la bokk ñii ñoo doon yoroon financement bi léegi nag léegi nag ba yàlla dogalee abu sufyaan agsi na abu jahlin takk na abu sufyaan yabalaat ndaw ne demal ngeen wax abu jahlin ne ko na si comme ñun li bëggoon mooy màng mi raw ak alal ji te yàlla dogal na raw na ba agsi ci dëkk bi na wàññi ko lenn li nag ak mbewte ak reewante ak fuuy fuuy lu lay lay nuru abu jahlin na ko man dignitaire bu doy ni man kilifa ak aada gu doy ni man notable bu doy ni man ma takk ba adduna bi yëpp xam ne takk naa dinaa dem ba ca badar taxaw foofa takk fa fan ya ma fay takk tabaarakallaahu jigéen ñi tëggal ma tabale yi wayal ma ñu rendil ñu giléem yi ñu lekk ci naan sàngara yi ba lépp jeex ñu wëlbatiku ñu xam ne dawuma rasulullah moom ñu ñi ma wuta affronté ba waxee lii ah Abu Sufyaan nekk fuuy nga de ñoom ba ñu déggee Abu Jahlin wax lii ñoom ci coalition ba lañu ñu bokkoon waaye dañoo mujj wàññeeku sama ñu wàññeeku wàññeeku nañu ak ñaari téeméer reyuñ ci kenn ka jiite woon seen arme nag ñoom seen mbooloo mooy zuhrata nul axnas ibnu sariq moo ko jiite woon ah. léegi jullit ñi nag départ nañ di dox ba ñëwee ñëw ñëwee ñëw ba ci boori beeñ bi maanaam boori ban bi daal foofu ñu bëgg a dal foofu ko ñuy wax xubaab ibnu munzir moo ne yonent bi waaw yow fii nga dal dafa leen da ngaa xaw a sori teen ba fii nga dal moom ndigal lu bàyyi ko asamaan la wala sa pexey bopp la yonent bi nekk ah maataamu fii rek mu nekk nañ dem ca boori teen ba ca boori beeñ bu dëgër ba kekk bi dañ ko moytandiku ndax kekk bi moom bu ñu du baax bi ñun danañu soxla ndox te ñoo fi jiitu taxaw sës ndox ñoom ndox mu ñu mënoon a yor wala ñam mu ñu mënoon yor bu demee ba jeex daañ soxla ndox mi te boobaa dañ leen di gën a gaaw a jekku rek ndax bu ñu maree wax dëgg yàlla ñu neex a ñu ne ah ñu ne waaw yenent bi ñëw foofu ñu nekk foofu nag fekk euh, xubaab daf ne ko moom alxarbu qidaatun wala alxarbu makida xeex daal wala euh, ay dóor laa ki pexe rek ba génn ci yenent bi ñëw foofu ba mu fa ñëwee nag ñu tabaxal ko fa benn benn pujum lañ ko fa defaral ka fa nekkoon ak moom nag moom Seydina Abubakar la moo ko fa doon garde Mm, di garder foofu yenent bi mm. foofu la doon ñaane ñaanam gu métti googule mm. tabaarakallaahu ci yaa hayyu yaa qayyuum yow yàlla mbooloo mu néew mi tabaarakallaahu boo fexee bañ rey leen fii dootuñ fi jaamooti yàlla ci kaw suuf ci la Seydina Aboubacar ba kaala gi mu yoroon rot Seydina Aboubacar yëkkatiwaat kaala ko naka yàlla tas sa yaakaar bañ demee placé nag ah Abu Jahlin ñëw na ak ñi ma ànd ak ak seen i délégation waaye Abu Jahlin dafa defaat yebalaat beneen waay bu ñu wax Omar ibnul Wahb neka demal nga xool ma jullit ñi seen arme bi nu mu toogeeg naka la mm-hmm. waa ji dem dikk nag ah <laughs> gaa yi de jeex na ñuy jeex goo xam ne mm-hmm. xiif nañu xiif goo xam ne mm-hmm. xam naa ne buñ dajeeg ñoom duñ doy ñoom daal dee fii ak dellu Madina la ñu yemale te ñun nag ñi nga bàyyi ay jongama foofa bàyyi ay kër foofa bàyyi ay nangam nangam foofa ku ñuy wax eh, Hakim ibnu Hisaam dégg wax ji ñëwaat ci moom nag waa yow lu di nga wax loo ko mën a waxee naka nga ñëwee ba fii di ñu ñàkkal fayda du ñu ñàkkal solo pour ñaar yeeg ci mbiram xeex bi mm-hmm. mun damaa xam gaa yi rek jullit ñii ah ñu ne yow ragal nga rek toppal fële bokkoon nga góor yaay ma ñu bi nga doon mm-hmm. bàyyi bàyyi fu may xëy léegi nag commencé nañu léewtoo mm-hmm. kenn ku ne nga war a léewtoo jullit moom ñi ngi nekk ñetti téeméer ak fukk ak ñett xanaa bëriwuñ de ngànnaay yi ñu yoroon it bëriwuñ ñu ngi nekkoon ñetti téeméer ak fukk ak ñett waaye ngànnaay yi ñu yoroon it bëriwul lañ yoroon ci gileem bëriwul itam tabaarakallaahu loolu yëpp xew na fa ba ku ñuy wax utbatum nu rabi ak saybatum nu rabi ñoom ñoo njëkk génn ci yéeféer ya ne moo ñu ñemee kan moo ñu ñemee affronté ci yéen jullit ñi ku ñu wax aw ak muaas ibnul xaaris ak abdullah ibnu rawaxata nee ku leen affronté ngeen bëgg bismillah yéen a ko neex ñooñu xam nga waa Màkka lañ nañu yéen du ngeen suñu naw la ñun suñu naw lay bopp yi la soxla suñu bokki bopp yi ci noonu rek rasulullah yi daal di woo Ubayd ibnul Xaarisa na ko jugal ana Xamsa mu ne labbayka mu ne jugal ana Sayyidina Ali mu ne labbayka mu ne jugal hmm? léegi léegi jàmmu jeex de waaw léegi jàmmu jeex de ci noonu rek Xamsa daal di fenkonteeg say bata dóor mu dee Seydina Ali daal di jàkkonte ko Utba dóor mu dee ki nga xam ne mooy Utba tabaarakallaahu moom it doon jànkonte keneen ka ci set Ubaydu bnul Xaarisa waaye ñoom ñaar seen jaasi yi fenkonte ca kaw mu mel ni ñaari dañoo xaw a mage nag ndax ndax dañ ne sax Ubaydu moom am nañu ne sax moom ak yeneen bi kon seen kàttan jeex na daanaka jom la ñuy demee hmm. ba ñaar ñu reyee kenn ka kenn ku nekk ba nga reyee ka nga doon léew toog rek la ñëw rek songu lekk waa ji jaaxaanal kooka nii nag lañ def rey ci yéeféeri juróom-ñaar fukk jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk dégg nga ko hmm. drapeau yi jullit ñi keroog ka ko yoroon Musab ibnu Umar la tudd xas rek ko yoroon seen drapeau mooy Xubaab ibnu Munzir hmm. law sa ko yoroon seen drapeau mooy Saad ibnu Muaas yonent bi ne ay ca bismillah ca kanam nii la ñuy def def nii def nii ba duma yéeféri duma yoo xam ne tabaarakallaahu kenn mësul gis duma yu ni mel keroog nag la yàlla tàqale dëgg ak caaxaan fa la lislaam taxawee ba idaa yawmina haada booba la amoon doole ba léegi doole jooju tabaarakallaahu malaayika yi nag ñëw ndax la Seydi Haaj wax waxoon wa yawma badrin jaa'u junuudullaahi min amril mu'in keroog malaayika yi ci seen bopp dañoo ñëw ak seen kaala yu weex wa duunahumul amaa'imu wa hiya biidun wa qad nasalu min alxarbi shatuuni keroog kaala yi weex la ñu kaalawoo sahaaba yi sax am nañu ci dégg kàddu jibril wa qad samia sahabatu xawla jibril yaa xayzumu akdim bil muzuni fasu jibril bi sahaaba yi ñu ngi dégg ni jibril di ko dàqee ci biir mbooloo mi ci biir xare bi tabaarakallaahu ba ñu gañ xare ba war a séddale màng ma nag coow am ba ñib see Madinatu Munawwara war a séddale màng mi coow am ñii naan ñii ñooy am ñii duñ am coow li na kur en tout cas xisa bu gudd gudd la waaye comme heure baa ngay dem te bëgg nañ ci laal tuuti ci saar yi léegi nag comme gàmmuwunu dañuy laal tuuti rek junj ko soo jugee rek boo demee ci yeneen téere yi dañ lay wax sax kenn ku ne ak la rey lu demee ni Ibn Shihab soo ci demee da lay wax kenn ku ne ak la rey yeneen téere yi gën a guddal yooyu daa ci gis lu lu lu sedd sa xol bu fekkee xisa bi daal bëgg nga la gën a yaatu ak na mbir ma demee ñu daw ci kaw yax bi tuuti bismillahi rahmaani rahim ne yasalunaka daañu la laaj yow sallallahu alayhi wa sallam anfaal ci màng yi mooy ndollant yi xul ne leen fii daka fi laal tuuti rek waaye séddalin yi ma nga ñëw ci boppu xisib ba yes xul ne leen al alfaanu màng yi lillaahi yàlla dong ko moom moo ciy seet nuñ koy dox ah. doxalee war rasuuli akub yonentaam mm. mooy wax it koy séddalee mm. waaye du yéen nit ñi mm. yéene wax nu ngeen koy séddalee déedéet fattaqullaha ragal leen yàlla wa aslihu ngeen yëwanal zaata baynikum seen diggante li ci xew nii ba ngeen di xëccoo ko ŋaayoo ci mbiram màng jaru ko waatiullaha topp leen yàlla ci lii leen sant wa rasuula ak ndawam lii ndax ku ko topp topp nga yàlla ku ko mooy mooy nga yàlla in kuntum ndegem nekk ngeen mu'miniin ndegem gëm ngeen mu mel ni da nekk ngëm piir nu muy mel mu ne innamal mu'minuun du ma lu dul woy gëm yi gëm piir piir piir xaqiqatul iman mooy lan benn saxaa ñuy wax xaaris ba mu ne gëm na piir yenent bi naka li kulli xaqin xaqiqatu fa maa xaqiqatu imanik mu ne dëgg gu ne de am na loo ko war a dëggal luy wane lii mooy dëgg yow nag sa ngëm gi ngëm lan moo ko dëggal mu ne xanaa jox gi ma jox àdduna ginnaaw di naafile guddi yi dootuma nelewati di wóor bëccëg yi di jàkkaarloo ko arasu borom bi di jàkkaarloog aljana mu mel ni maa ngi jàkkaarloog aljana jàkkaarloog jullit nañ fay ziyaarante di gis a gis yéeféri nañu musluwantee ci laa xam ne yor naa dëgg-dëgg ngëm yenent bi nekk dëgg la foofu nga jàpp foofu la loolu dëgg-dëgg ah, yow ci foofu <laughs> ci àllul isharaat ne dëgg-dëgg ngëm dafa séddale ko ci juróomi xaaj mooy al yaqin al ak raja ak mahabba te benn bu ne daa am fu mu lay jëlee am fu mu lay yóbbu yaqin boo ko amee dalay génne ci sikk sàkka ixlaas boo ko amee dalay lay génne ci njissal xawfu boo ko amee da lay ci wóolu pexam yàlla rajaa boo ko amee dalay lay génne ci xaddi goo xam ne xaddi nga ko ci yërmande yàlla yi mahabba tabarakallahu boo ko amee da lay génne ci wéet goo xam ne wéet nga ko wala gëlëm goo xam ne gëlëm nga ko hmm. saa boo kii rek yaa ngi dellu ci sa borom hmm. yii nag ku ko am ixlaas nekk ci yaw hmm. yaqin nekk ci yaw yow xawfu nekk ci yow rajaa nekk ci yow mahabba nekk ci yaw dama ne am nga xaqiqatul iman moo tax mu ne innamal muminuun du ma dul way gëm yi piir piir piir mu misaal mooy ñi nga xam ne ila zikra bu fekkee tuddeef na allah yàlla yàlla tudd nañ ko ci alquran mu ndi ay tëkkoom wajilat jàq xulubum seen xol yi wa ida tuliyat bu fekkee jàngeef na alayhim ci ñoom ayaatuna sun ay aaya ndegam jàng nañ alquran ci ñoom zaadathum yokku leen aaya imaanan déggal majaas boobu aaya moo yokku ngëm la yàlla aaya kay xaqiqatan du yokku ngëm wax kay doo kay majaas la wala rabbihim ca seen borom itam yatawakkaluuna la ñu sukkandiku dénk seen ci mekkaay ñi gëm yàlla piir mooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yuqiimuuna dañoo taxawal asalaata julli dafe ko ak sartiya ak naka suñu borom bëggee min su yarda laa min xaysu tarda min xaysu tarda laa min xaysu yarda ah, wala min xaysu yarda laa min xaysu noonu la nim neexee yàlla waaye du nim la neexee wa mimma razaqnaahum ak lenn ci lu leen wërsëgal jox leen ko ñoom jullit ñi piir yum fiqoon dañ cey financé bu yoonu yàlla wootee ñu def seen kémtalaay kattan moo xam xalaat bu rafet la ñu am wala seen alal la seen doole la lépp daal nañ ci def seen kéemtalaay kàttan sama borom ne ulaayka yooyu la gaa yi mel nii ma fi wax léegi ma waxaat ko nee na hum ñoom al ñoom kese kese kese ñooy way gëm xakkan piir mooy ah, xaqiqatul iman bi ma la doon wax léegi lahum ñeel na leen darajaatun ay daraja inda rabbihim fa seen boroom wa maxfiratun ak njéggal wa risqun ak wërsëg te mooy aljana karimun bu sell lool baax lool mu daw ñëwaat ci ci ci xare Badar nee na kama axrajaka comme naka la la génnee ko sa borom yow sallallahu alayhi wa sallam min baytika nga bàyyi ko ci sa kër te caaxaan génn waaye dëggali kàddu yàlla nga génn bil xaqi génn gi nga génn nag armée ba tabaarakallaahu pour war a jàkkaarloog ñoom abu jahli nag seen coalition am na ci jullit ñu ñu mu neexul wa inna fariqan xamal ne am na ab parti minal muminin ci way gëm ñi ñoo xam ne la kaarihuun way bañ lañ génn gi nga génn pour war a jàkkaarloog jeg abu jahlin ngir tabaarakallah ba tax na ñoom yu jaadilu naka ña ngay dàggasanteeg yow fil xàq ci xeex bi bay tabayyana gannaaw ba leeree leen ne xeex day am gannaaw ba mu leen wóore ne xeex day am moom foog ñuy jàmmaarloog yéeféer yi lañ commencé dàggasante yow di am lu ñuy wereek te lu ñuy def nangam nangam dégg nga wax baax ka annama yusaaquuna dafa mel ni dañ leen a màng jiital leen ilal mawti jëme leen ci faatu bañ ragal waxum ñoom yandurun ñuy jàkkaarloog faatu ga nii ba tax ñu bañ ko fàttalikul il yaidukum ba leen di dig allahu yàlla ihda taifataini benn ci ñaari mboolooy mm-hmm. benn ngeen duma ñoom abu jahlin mm-hmm. wala ngeen dogo leen nangu seen alal ja mm-hmm. mooy benn iir wala nafiir rek annaha naka armu boobu walla benn ci mbooloo yooyu mooy iir bi wala nafiir bi lakum ñeel leen lu ngeen ci jël rek yéen moom wa tawadduuna yéen a ngi bëgg nag ak a ngéeji yéen jullit ñi anna gayra zaati shawka ba ñeel leen li nga xam ne nekkul boromi gànnaay te mooy njëgg mi njëgg mi moo amuti gànnaay waaye xeex bi kay ay gànnaay ci ne ay arme moo ci ne te takun daa nekk lakum ñeel leen ngir lan pour man maanaa ngeen jël ar alal ja te xeex du am te li leen yóbbee loolu mooy yéen jullit ñi da ngeen néew ndax trois cent treize ngeen tolloog waa kër jaaluta ak taaluta te wa yuridu bëgg na yàlla moom an yu xiqa mu feeñal alxaq dëgg bi kalimaatihi ca baatam te mooy lislaam mooy kawe toujours dara mënu ko kawe te bëgg naa loolu am te loolu mi ngi mën a amee ci xare comme loolu comme bis ni tey la woon da de wayakta ak pour faagaagal moom yàlla daabiral kaafir gannaaw yi yi man daal ak kéefér daal man yàlla moom laa bëgg a tudd gis ci kaw ci kaw suuf dama ne liy xeqa pour na saxal alxaq dëgg moom yàlla wa yubtila mu naax saayal albaatila kéeféer walaw kariha doonte du neex sax nag doonte dina ko bañ almujrimuuna saay saay si wax naa la ba ñu toogee ba nga xam ne guddi googu nga xam ne léegi jàkkaarloo moo des jullit ñi néew nañu lu yenent bi waxoon allahuma anjiz lii maa waadta li allahuma aati nii maa lii la doon wax yow yàlla daal lépp loo ma diggoon na ñëw tey lépp loo ma digoon rek na dikk tey sa mbooloo maa ngi di nag suñu fi dee islaam kenn dootu la jaamu ci kaw suuf muy ñaan loolu di ko ñaan ba kaala ga si naa aw bakar jilaat kaala delloo ko ci kaw na yàlla du tas sa yaakaar ma ngo moo tax fàttalikul istasaxisuun jamono ba ngeen di xettalikoo di ñaan rabbakum seen borom pour mu jàppale leen fa jaaba wuyu na moom yàlla lakum ñeel leen ca la ngeen doon sàkku yàlla leen anni man yàlla mu middukum aji dimbalee laa leen aji tëbbu laa leen bi alfin ci ay njunni minal malaayka ci ay malaayka murdafina yu tegloo wax naa la si xaaj ma léegi dama wax ci malaayka yi ne malaayka yi ñëw nañu keroog kaala yu weex sax lañu ñu kaala woo nga xam ne la góor gi alaaji ahmad siise piir doon wax <laughs> nee na malaayka moom kum dóor tabaarakallaa dañ lay mën a kaala woo ndax nooy gooy nooy da ngay nooy ni kaala <laughs> boo dégloo bàndam boobu loolu la ci wax Hmm. waaw malaayka moom ku mu dóor dañ lay mën a kaaloo ndax da nga nooy hmm. malaayka yi nag ñëw nañu hmm. da ngay gis saxaaba jub benn yéeféer gis yéeféer ba daan te du xam lu ko daaneel fekk malaayka yaa jaar foofu wàcce waaji wàcce yéeféer bi dégguloo wa maa jaalahu deful ñëwug malaayka yi allahu yàlla defu ko illa busra loolu mu nekk ak mbégte goo xam ne dañ leen koy bëggale yokkee ko seen mbooloo muy benn ndax yéen li tax ngeen ragal seen mbooloo mu tuuti rek ngeen ragale waaye ci xol yi di ragalu leen sax mbooloo mu tuuti bi rek ngeen xool wala ta ma inna ak pour na dal bii ci euh, malaayka yooyu xulubukum wa man nasr leen dimbal nag bu leen ka yaakaar muy bàyyi ci kenn du ci kenn illa min indillah ku ngeen mën a yaakaare ne dimbal ci moom lay bàyyi ko ku yàlla jàpp ngeen concal koy daw inna allaha naka yàlla azizun mooy aji nat ci nguuram xakim mooy teg ak mbir fa mu xam nga jullit ñi ba ñu ñëwee ca barabu xarekaay ba dal gi ñu dal ak ànd ak gi ñu ànd ak seen sago tabaarakallaahu ak foofu ni mu kertandegee dem nañu ba gëmmintu jàpp leen sax ba ñuy nelaw xam nga nit ku war a xare di nelaw moom wóor na sa xel dal na amoo looy ragal dégg bu baax a baax foofu nag afaan ñuy àgg ca barabu teen ba mar xawoon na leen a jàpp tabaarakallaahu ñi yeew ndox amul foofa ak ñi nga xam ne soxla woon nañu ndox iblis jaar ca wet ga di wax ne ñii daal ñoo wax nañoo nekk ci dëgg ñoom nan la ñuy nekkee ci dëgg ba pare te ñoom amul ndox amuñ dara li lu xew ñii kay nekkuñ ci dëgg ci la yàlla wàccee foofu nag taw boo xam ne tabaarakallaahu taw bu bëree bëri ñu ci yitte woon sangu-sangu ñu ci yitte woon jàpp-jàpp ñu ci yitte woon naan naan tabaarakallaahu loola ñetteel fàttalikul il yughashikum jamono ba leen di muur an-nu'aasa gëmmentu gëmmentu nag su ngeen demee ba di ko def ne la wàccee tegu amaatan mbir moom mu nekk kóolute ak kóolute goo xam ne am ngeen ko ba gaa yi di leen dal ci seen kaw min woptu kenn ci yàlla waaye nag dina wàcce aleykum ci yéen mais samaay ci asamaan si yàlla ci wàccee maa an ndox lii tahirakum bi pour mu laabal leen ca ndox ma janaaba yi ngeen yoroon ak sobe yëpp mu dindi ko wa yuzhiba ak pour mu ankum ci yéen hmm. rëy sa seytaan hmm. jax-jaxali seytaan yi mu leen dugal ci seen bopp naan yéen daal yéen a nekk ci dëgg ngeen soxla ndox muy leen kaa am loolu bu yàlla wàccee ndox lay wow day dem hmm. wala yarbita ak pour na takk yeew dëgëral comme ci seen xol yi ngeen mën muñ mën a jàmmaarloo gaay lu tax yàlla wàccee ci taw ci benn bi xam nga kekk moom place boo xam ne place bala mu nekk kekk bu tawee day ratax te bu la taxee boo ci dawee <coughs> da daanu te boo daanoo watul dam mun la caa fekk foofu la yëfari placé woon nag yàlla fa nekkoon beñ bi nag tabaarakallaahu mu dame ko ba nga xam ni day nooy tànk nit ñi duñ fa luuf maa duñu duñ duñ duñ dugg ci biir wayu sabbit ak pour nu dëgëral bii ci raw boobu al aqdaama seeni ndëggu pour mbañu nuur ci biir is yuuxi fàttalikul bay wax yi ràbb ko sa boroom ilal malaayka jëme ki malaayka yi an nii man yàlla maakum maa ngi ànd ak yéen ci biir ak ci biteeg ci nu ne fa sabitu saxal leen dëgëral leen yéen malaayka yi allazina gaa yi nga xam ne amunu gëm nañu tuug sama borom ne sa ulqi dinaa sànni fi qulubi allazina ci xolu gaa yi nga xam ne kafaru weddi nañu dinaa ci sànni a roox ba tiitaange war a xeexi dem ba fa ngay xeexee ànd sa sago sam xel dalul da nga neex a gañe yàlla nag comme malaayka yi moom xamuñ ni ñuy xeexee nit ndax malaayka li ma daan xam mooy demal ci dëkk alak leen ñu ne xëy mu jeex <laughs> malaayka loolu la xam ba ñee ne comme ñoom miinuñu raak yàlla ne ay ca ngàdd leen ci loos yi ñuy wàcc wala ngeen di ngàdd ci baaraam yi dagg baaraam yi dootu moytee jaasi koy xeex ak ci téewul jaasi ko koy jeex na si fii loosu damm koy boromam dee na fadribu ngàdd leen fawqa al anaaqi ci kaw loos yi rek yi wàcc loos moo tax góor gi ne dañuy mel ni kaala ci nooyaay dóoru malaayka ci kum xaj wadri bu dóor leen minum ca yéefér ya kun la banaanin bépp bu catal baaraam dagg leen baaraam yi téye jaas yi su ko nga xam ne yéefér yi dañuy xamu jullit dañuy ñëw rek mott bi zalika li waral mbugal mii ma mbugal ko yéefér yi jaare ko ci loxol jullit ñi bi annahum naka ñoom yéeféer yi saaku dënge nañu allaha yàlla wa rasula ak ndawam li yàlla akam yenentaam wax defuñu ko moo tax yàlla jël yenent bi yabal ko ci seen kaw wa man yusaak képp ku dënge allaha yàlla wa rasulahu ak ndawam ba ñu def santaaneem fa inna allaha naka yàlla sadidul iqaab ku tor ay duma la duma yii ñu leen di duma yen yéeféer fa zuuqu mos leen ko ci àdduna waay wa anna lil kaafiriin xamal na ñeel nañu weddi yàlla ëllëg yowmal qiyaama azaba naar kon boole naa la ak bi boole naa leen ak bi mu duma leen fii fële dana leen duma ah abu jahlin kay dafa daw daw ba cumbee kaayam réer ko kero yaa ayyuhal lazina amanu yéen jullit ñi laay wax ida laqiitum ndagam daje ngeen ak allazina gaa yi nga xam ne kafaru weddi nañu mooy saa bu ngeen daje teg yéeféeri zafan mbir moom mu nekk ay mboolooy mbooloo yéeféeri lu ñu bëri bëri falaatu walluuhum bu leen leen jox al adbaare ginnaaw yi mooy bu leen daw yéeféri moom lu ñu bëri bëri rek bu leen daw wa man yuwallihim képp ku joxe dëngalu yow ma idin keroog bisu xeex ba mu dëngal duburahu ginnaawam dëngalu daw ah kooku def na bàkkaar bu rëy la bëgg a wax ah illa mutaharifan ndare koo xam ne aji jubbantiku la waa aji jeng la dañ ko bëgg a mu ne sa waay moytu moytu xaw moytu nii lil ngir mën a jekkoo xeex bi rek a aw mutaxayyisan wala kuy làquwaat dafa wéetoon fee gaa yi tongal ko mu ñu làq siwaat ci jullit ñi hmm. ilaa fi atan déggoo jëm ci mboolem jullit ñi ku bokk ak ñii hmm. waaye da ngaa doon wëkkat joxe ginnaaw abu samet hmm. jullit bu ko def faxat baa dellu na di xadabin ci mer mais laay bu tukkee ci yàlla te kooku wat jullit ba ko def wa mah waaw këram tabarakallahu jahannam wa bii sa bon na almasir mujj waay dégg nga de hmm. jullit ñi nag ba ñu ñëwee kenn ku ne naan daay abu jëli ba ma ko tiibee muy caalita ko yuuxu nangam nangam kenn ku ne di namu nag naan maa rey diw maa rey diw yàlla ne déet bu leen jaxase yu bokk yéen koy reyu leen kenn gis nga ko yéen koy reyu leen kenn xaqiqatan reyu yàlla rey hmm? ndax bis bu leen nga gis nit ñu def ko loo xam ne tey si tey waroon na caa mën a dee waaye bu fekkee diggam jotul du ca dee day dundaat kon reyoo ko yàllaay rey te bala nga xam nag nga xool la xewoon ca diggante yonent yàlla Ibrahima ak xarma ba mu jëlee paaka bu ñaaw ba teg teg fu mujj yàlla rey mu jeex falam taqtuluhum rayut leen leen de yéen a ngi nag yéen jullit yi laay wax walakin allaha waa yàlla xatalahum moo leen rey dëgg-dëgg ki leen rey néewal leen doole kooku ca pàccu li xam nga ba affaire métti yenent bi dafa jël ay xeer rek sànni ñaan na sahatil wujub sahatil wujub seen bër yëpp fatt sànni yooyu nag la bëgg a leer wa maa ramayta jamonoo fattoo kenn is ramayta jamono ba nga sànnee xeer yi walakin allah waa yàlla ramaa ci boppam mooleen rey moo jam sànneeg jam nag dafa wuute mën nga sànni sa jam du am de kay jam moom fu mu amee rek sànni am na wala dee Ibrahima mm-hmm. yàlla kay def lii kon teqale na boole na ci ñu dégg li may wax mm-hmm. <laughs> teqale na boole na mm-hmm. uh-huh. lu sori la nag maa def lii wala yubliya pour na nattu allahu yàlla minhu ci loolu balaa an mu nekk ab nattu xasanan bu rafet rafet inna allaha naka yàlla samin aji dégg li ngeen di wax waaye alimun kon yàlla dégg baax na benn nit yàlla ne ida ida ma tamanna naasu rawxan wa raaxatan tamannaytu an asku ilayhi fa yasmau su nit ñi yittewoo cuuraay lu neex ak di dallu man de li may yittewoo di ñaan yàlla muy dégg sama baat bi jaamu yàlla muy dégg sama baat bi kooku tolluwaay la waaye <laughs> nañ jàll bala may taxaw zalikum kooku nattu leen boobu waa na laaha naka yàlla kooku mooy yàlla mu wahinu mu wahinu kaydil kaafi kaydil kaafirin mooy aji ñàkkal solo mooy aji doy del pexem yéeféer yàlla dégg nga keroog ba nga xamee ne abu jahlin mi ngee départ ak mbooloom dafa bokk ci ñaan ngam doon ñaan ba mu taxawee ca Kaaba ga ne yàlla ñu nag Seydina Muhammad ku ci nekkul ci dëgg yàlla bu mu dellusiwaat <laughs> moom nekkul ci dëgg jàppale ci dëgg la mu ne li may mën a waat ñu nag moom daal ku ci nekkul ci dëgg yàlla na ñu àtte yàlla na dee mu ne moom moom mboolam ñu tër leen rey istafta jamono ba ngeen di sàkkoo ubbi ubbiku ak attewoo yéen yéefér yéen doon sàkkoo attewoo ak ubbiku faqad jaakum ñëwal na ne alfatxu da ngeen doon ñaan naan ku ci nekkul ci dëgg yàlla dee yàlla atte ne leen yéen de yéen a ci dëgg saa borom ndegam daytalu nañu bàyyi seen caaxaan yi bàyyi bokkaale yàlla gi ñëw tuub foofu wa de xayru moo gën lëkkum ñeel waaye wayn taxaw du ndegam delluwaan ngeen laajaat ramaas ci rasulillahi sa borom ne na ñun duñ sori naw daanu din daanu dikk delloo si suñu kàtt nag suñu ndimbal lépp ndax ñu téye ci mekaay sidina Muhammad mm-hmm. wayn taxaw du rek naw su ngeen di del si ñuy del te bu boobaa walan tuxnee du jariñ mm-hmm. an kum ci yéen fi atukum seen mbooloo mu bëri mi du leen jariñ mm-hmm. sey an dara mm-hmm. walaw kasaroon nag seen mbooloo mi lu mu bëri bëri bëri du leen jariñ tus waan laaha naka yàlla maal muminin ndimbale ma ngi ànd ak way gëm yi de yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla ñun la atiyon topp leen allaha yàlla wa rasuluha ndawam li muy santaane góorgóorlu leen ci suba ngoon wala tatawala bu leen du mooyu mm. anhu ci wuuteeg yenent bi mm. ci lim leen di sant mm. te wa antum mbir moom yéen tasmauna yéen a ngi dégg alquran bis bu set kon fi leen jaarloo jaar leen fa rek wala takunu bu leen nekk fu mu ngi sore baax na wala bu leen nekk que lazina mel ni gaa yi nga xam ne xaalu nee ñu sami'na dégg nañ li nga wax leer na te waxum ñoom laa yes mooy dégguñu déggu seetantal kom naa feqi mm. ne rikki laa war sal bi leen mel ni naa feqi mm. ah, kon su ko defee ñu a xam noonu donte ba dara jeexul mm. waaye bu ëllëgee rek ñu waaxu ko ci kàttan yàlla incha allah ñu jàng faati ak salaatul faati def ko hadiyi ci indi saa salaam